mouvement bi li ko tax a jóg moo di servir Touba mooy soutenir dëkk bi li nga xam ne sëriñ bi ñaanoon na ko ci Matlabul ni yàlla dugalal ko ci dëkk bi ñoo xam ne dañ koy jariñ di ko ser di ko servir ñoo xam ne kon ñu ngi ci dëkk bi ñoo ci war njëkk a jiitu loolu moo tax ñu ñu yëkkati mouvement pour servir Touba ngir dëkk jëriñ dëkk bi dëkk bi évoluer ndax gis nañu Touba war naa amaat benn xar kanam bu bees important bi nga xam ne aussi Dakar am na ko ci biir réewum Sénégal jot na sëkk tey Touba am important bu toll noonu ci biir réewum Sénégal moo tax ñu créé mouvement bi pour servir Touba. mu dara loo xam ne yaakaar yaakaar yaakaar nañ ko ci kenn kenn ci kenn rek dañ ko yaakaar ci moo di état mouvement bi muy mouvement pour servir Touba bi ànd ak 382. association ak deux euh, ak trois ak deux cent deux cent mbootaay ñun ñëpp ñu ànd lëkkaloo ci ginnaaw Daouda Sow ñun ak les amis de Daouda Sow ngir fas ne jàppale président Macky Sall fii ci biir Touba ñu wut ñu teg ko nag ci ay preuve yu leer. Touba waaw topp jafe-jafe yi ci biir Touba bari na. Touba maanaam euh, xam nga maanaam xalangu dëbul dëjul suuf ca fas lépp lu mu daw daw du ñu làbbali ko. fas lépp lu mu daw daw te ñu ta làbbali ko dëkk bi am na loo xam ne soxla nañ président Macky Sall def na fi lu bare bare bare ci wàllu tay tali femme yi femme yi surtout ñoo tax ma gën a dugg ndax dama nekk dama dama nekk ñëw ba biir ba Touba damay doomu Touba nag waaye dama ñëw ba ci àll bi fii ñëw dëkkee fii rien que pour dëkkook ñoom te muy lu leen yéem ñu kontaan ci lool ndax dañ ne ma li nga fi def mënoon nga dem ba ci àll ba nga def foofu ci biir Touba mais dangaa ñëw fii ci ñu dëkkee ci li nga def ko fi mais c'est pour rien que pour xool ni ñuy dundee ak mën a dund ak ñoom ak dimbali leen te comme ndimbal googu maa ngi ci te moom mi tamit ci loolu la nekk am ne lool ci jigéen looloo tax ma ne ko maa ngi sa ginnaaw ànd ak yow jàppale la ñu jàppale jigéenu Touba ak jigéen gox bi ma dëkk surtout. Euh, ñëw naa tey tuuba pour liggéey ak waa euh, dëkk bu tedd la dëkk bu sell la. Euh, ziare nañ kilifa diine yi fi nekk ñëpp di ziare également sëñ Touba di ziare xalif xalif bi également euh, di kontaan aussi si nit ñi teeroo gis ngeen euh, nit ñi mbooloo bi nu mu takkoo mbooloo bu takku la donc li ñu fi indi muy jàppale le président pour ñu réélire ko dès le premier tour en 2019 donc baax na ñu ñëw si population bi ñu xool problème yi fu ñu nekkee mais également ñu wone réalisation président de la république ñu commencé ko nag ci suuf mooy jeunes yi femmes yi dem rencontrer la population waxtaan ak ñoom parce que ñoom tamit dañoo bëgg ñi leen jege ñu porter seen message man loolu moom andi woon tey Touba parce que Touba également dëkk bi nga xam ne président de la république Macky Sall ko gëm ko bëgg loolu moo tax it def na fi ay réalisation yu bëri baax na également suñu ñëwee ñu conseil nit ñi ñu wax leen wul gis nga li fi président def li nga xam ne également war nañ ko si yokk incha allah ñu yokk ko si parce que bëgguñu ñuy nax population bi am na ñuy war seen cartable yore wuñ sax parti politique am na ñi nga xam ne ñu ngi wax ay opposant lañ mooy parti cartable yooyu da ngay yore sa cartable rek yore say papier di wax ne opposant nga di alors que ay chantage kese la donc population bi waruñu waruñu nangu ñu leen di nax kuy réaliser tey kuy defar dëkk bi mooy ki nekk au pouvoir mooy le président Macky Sall avec son gouvernement avec tous les ministres avec qui il donc nañ liggéey ak guvernement bi ñu gën a continuer réalisation incha allah bu ñu falaatee yi dès le premier tour ah gis ngeen sa vision vision à long terme la Touba ni ko sëñ Fadel sànq waxee am na li nga xam ne jot na ko wax si vision sëñ Touba incha allah président Macky dina àggali concrétiser cette vision là. Euh, affaire bi du jékki-jékki rek sotti en un am na nu mu fekkee dëkk bi te dañoo bokk également ci pays de l'Afrique donc euh, c'est sur nañu wax langage de vérité am na lu des li des loolu incha allah bu amee son deuxième mandat dina ko mottali donc doléance yi population bi wax. Euh, am na yi nga xam ne ñun mën nañ ko def mooy déléance yu ndaw yooyu loolu ñun incha allah dinañ ko def leneen li si des ah man dinaa ko porter à qui de droit déjà ma commencé par le ministre de l'intérieur avec qui je travaille dans le département de Linguère mooy le ministre Aly Ngouille naa ko wax doléance population bi naa wax également au ministre de l'hydraulique et de mooy muy monsieur le ministre Mansour Faye loolu dina ko jot leneen li waa présidence dinañ ko jot te incha allah xam naa bu ko jotee président de la république président na ki dina jot seen doléance